ku nekk sa tur ak sa sant di leen baal wàq ci toogaay bi mais yëfu géwél moo te ki ko jëf moo maa ngi ñaan jàmm di ñaan bés bi ñu jëm muy tabaski yàlla nañ ko fekkee buñ ko fekkee yàlla nañ ko tal ñu nekk ci kaso yàlla nañ yàlla génne delloo leen seen njaboot ñi feebar mu fëgg seeni bopp ñi faatu nekk yomal xiyaam yàlla na leen jéggal yërëm leen te ñun ñu yéexee ñu ah ñu gudd fan ak wér ñu dëkkee di leen ñaanal euh, ñu ngi baroot àq bu baax a baax a baax a baax a baax encore une fois jottali président li ñu ngi baalu àq bu baax a baax encore ngi baalu àq bu baax a baax ah ñu ah. ngi wax waaw bu baax a baax a baax encore une fois seen togaay bi yàgg na ah ñi fi nekk ñëpp du ma lim kenn ku lim juum maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp Seydina Omar jërëjëf jërëjëf jërëjëf ba mu ñetti yoon la presse mi nga xamante ni yow ñoo ngeen fi ànd ak Seydina Omar jërë ngeen jëf jërëjëf merci beaucoup di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak di ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi di tàmbali subay kàddu bi nuyu son excellence monsieur le président jàmm réew mi président Waly Ballago Seck di tàmbali samay kaddu di présenté jëf ji addiye ji nga xam ne dama ko indil suma président li waral nag ma utiliser baatu addiye ci biir waxtaan bi dinaa ko leeral waaye mbokk yi kaddu yi may jël tey bi ma juddoo ci suma ndey ak suma baay ba fii ma toog di wax ak yéen mosumaa jël kaddu yu ma ñoree nii ci sama dund parce que kàddu la yoo xam ne ci man bëgg naa bu leere li des sama dund yëpp leer waaye bu lëndëmee tey li des sama dund yëpp mën naa lëndëm moo tax maa ngi sàkk ci yéen ñu ànd ak dal ànd ak teewlu te déglonte ngir ma mën a jotal kàddu cant yi nga xam ne maa ngi ko yëkkati jëme ci sama dund man ba noppi jëme ko ci suma président li nga xam ne nag indi nañ ko muy jëf ji nga xam ne tey sunu jëf la war ci sunu diggante ak président ñu delloo ko jukkal ci ni mu def waaye ñu delloo ko jukkal it dooleel ko ci li muy def jëme ci réew mi ak jeunesse bi ak néew doole ak nit ñu baax ñu muy jàppale ñu bëggoon ko présenter la presse sénégalaise ci lu gàtt doo ko tàbbi nag ci kàddu cant yi président indi nañ la juróom-ñaari xar juróom-ñaari xar yi xar bu ne boole nañ ko saaku soble saaku pombiteer ak biteelu diwlin indil nañ la poobar indil nañ la muccaadar indil nañ la laaj. dina safle. président indil nañ la fukki pack d'eau yoo xam ne ak waa Tera la suma sponsor bu mag bi sa xarit sa soppe Mamadou Yatta Saay. dëgg la président indil nañ la juróom-ñaari pack de jus yoo xam ne tubaarkaal la ku lekk ndawal ba noppi war a naan jus waaye président indi nañ la juróomi kees fruit. yoo xam ne benn bi mi ngi def banaana ba ka topp mi ngi def sorance ba ka topp mi ngi def mango ba ka topp mi ngi def poivre ba ka topp mi ngi def clémentine poire poire ba ka topp ma nga def clémentine nekk nag addee joo xam ne xeet nañu ko bu naa amoon lu ko am tey danañ ko indi waaye la ñu amus néew rek la ñuy fexe di góorgóorlu defi geste li waral nag ma tuddee ko addiya te internet bi dana toj tey waaye balaa ñu koy toj ñoom man ma toj ko ndax ma ragalu ma fu ma jëm masa kastoor laa juddoo coow rayu ma ay wa yabooy laa ñu tuddee ay wa laaj ay wa sompaat ay wa jalañ ay wa yaax ay wa daqaar ay wa kaani ay wa bisaab laa njëkk dégg ci sama dund vendredi 2 novembre laa juddu 15 heures 12 minutes ñaar fukki minute nag ji daj ñu génne ma hôpital principal yóbbu ma sama kër maam Masaka Sow ma tëdd ci marché bi rek dégg gaa ñu yuuxu ay wa yabooy ay wa laaj ay wa soo ku lay wax la ngay jaay moo tax du ragal coow man man mënumaa daw coow parce que fa ma juddoo la fa la fa ma la waaye daf ci am loo xam ne bu ñu tollee ci mu war a leer na nga fexe mu leer délégation bi nga xam ne fekk naa la fi ñuy naan ñëpp jox ñëpp seen wàcc waaye sëñ Bara kàddu yi rafet na mm. suma papa sami tuur jërëjëf kàddu yi rafet na kenn ka joge jërëjëf Moustapha Rasoul jërëjëf mm-hmm. yaa oustaz Mor Sey oustaz Faramari ni jërëjëf alaaji Faafa jërëjëf li waral ma tuddee jëf ji addiya laa bëgg a leeral nit ñi alaaji Bara mm-hmm. dama judd ñu tuddee ma Seydina Omar bul xataat sama papa di jullit sama yaay di jullit ci ma yaroo Massa Kastoor juddoo fa ay ibaadoo ma yar benn nit dafa nekk dib murit gëm sëñ Fall sans baaya li ci des ñëpp ay ibaadu lañu ma juddoo fa yaroo fa màggee fa ba am fa fukki at ak ñaar ñu def ci man diine def ci man lislaam def ci man yar def ci man teggin def ci man bëgg suñu borom waaye def ci man jàng alxuraan ak mokkal xadis yi nga xam ne tey yonent bi mu ngi jàng ñu jullit ñu war a melo ma yaroo ci kër googu ba am fukki at a ñaar génn fa tàbbi sama kër yaay Liberté 6 yeggali fa li nga xam ne mooy sama enfance ba nii ma toll tey waaye mbokk yi li waral ma ma indi leeral ci sama juddu ni ñu ma yeeree ci njullit mooy dañu maa yer ci njullit ba noppi Abdoulaye si coupé bi dañu maa yer ci njullit ba noppi li ëpp solo ci njullit nekkul woon ci man sëñ Baara dama bëgg nga déglu ma de. mooy lan li war a jëf ji ma tuddee ko addiya xam nga mënoon naa ko tuddee cadeau. mun naa ko tuddee teraanga mun naa ko tuddee delloo njukkal waaye dama ko tuddee addiya li waral ma tuddee ko addiya mooy ki nga xam ne moom laay jox jëf ji lim def ci man ak sëriñ ma ko daan def ci taalibeem ab wàlliw moo ko daan def ci waayam wala fa yàq baat bi tuddee ko wàlliw waaye tuddul wàlliw wàllu yiw la tudd dalay jege wàllu laa yiw waaye yàlla nit ko baax moo ko daan def ci njabootam te jëmm jii da ko def ci man mbokk yi xam ngeen loolal la doyloo yàlla. cëy ci moom. damaa judd ñu tuddee ma Seydina ma judd ba nii ma toll sama doyloo yàlla ci intérêt laa ko tegoon. Ah. waaw. bi su wax bu jotee ku waxul doo gor ngeen baal ma nag ci reetaan yi parce que waxuma pour ñu ree li may wax daf maa ñor ngeen jéggal ma même bu wax di neexee ndax Omar a ni mel muñu leen ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa parce que li may wax daf maa ñor dama ne damaa judd doon jullit ñu tuddee ma Seydina Omar bun Xataab yar ma ci diina ak lislaam ci ay kër ibaadu laa jullee falaa juddoo falaa yoroo falaa màggee xam sama diine jàng alxuraan jàng xas bi jàng li nga xam ne mooy xaddi si yonent yi gëm yàlla bëgg ko waaye ma ko woon ku ma déglu dëgg dëgg dafay dama ne man dama gëmoon yàlla man Omaro dama gëmoon yàlla suñu borom bëgg ko waaye man wóolu moon yàlla kii moo def ci man wóolu yàlla te wax ko man maa wax lu gën am bukk fii lii ngeen di dégg tey dootu leen ko dégg ci baat bi tukki président bii toog moo def ci man wóolu sa borom te waxuma ko xam nga nit sax man ngaa def ci moom loo ko wax baatab tontu waaye kii dafa def ci man doyloo yàlla wóolu yàlla te waxuma ko mu bëgg leen leeral nag ni ko defee ci man jum gëm yàlla bëgg ko waaye wóolu ma ko xam tax wóolu ma ko mooy maa ngi dund jàpp ne nit mën na maa jariñ déglu leen mu baax maa ngi dund di am yaakaar ci nit jàpp ne mën na maa jariñ maa ngi dund di ragal nit jàpp ne mën na maa lor ba maa ndég ki la denc man ay waay ay waay yàlla nañu ma dégg maa ngi ñaan ci barke Cheikh Saliou Fat Jaxate fa may waxee ak la ma yëg ba di ko wax yàlla nañu ma dégg dama ne dama judd di jullit gëm na bëgg yàlla waaye wóolu moon yàlla man man doyloo moon yàlla parce que li may dund yëpp ba nii ma toll maa ngi doon ragal Abdoul Aziz ndax jàpp na mën na maa lor maa ngi doon bëgg baara ngir jàpp na mën na maa jariñ kii laa jege waxul dafa jëf jëfaat jëfaat ma dem sama kër toog tëdd sànni baag bi taal climatiseur bi boole ko ventilateur bi dégg bi féex ma def prise de conscience xam kii li muy dund ak man lii fay ma xam ne kii mi ngi may yar ci doyloo sa borom li waral nag ma ne leen moo def ci man doyloo yàlla mbokk yi adduna dafa doy waar adduna dafa yéeme adduna dafa yéeme moo tax yàlla ku ku ku sew ay mbir la te ku neex ràññee la ci biir gaay yi li ma wax ci alxuraan rek sama signature ñu ne naam mu ne yéen jullit yi yéen doomi aadama yi yéen ñi nga xam ne maa leen sàkk maa leen créé ku ñu nekk nag signature waral ba ñun ñii ku ci déposé carte d'identité wala passeport danañ la signé mu ne ah comme yéen nag yéen ñëpp ngi signé ngir wane seen i mandargal kaay leen wax leen sama signature ñu ñëw mu a maa tey ñu ne ko looy wax ne allahu subhanahu wa taala mu ne waa lu ma soob laay def fi ma soobee ak ni ma soobee kenn mënu ci dara sama signature mooy maa tay xam ngeen lu jëmm ji defee ci man doyloo sa borom boo keroog bi may ñëw ci jëmmam fas yéene ko jàppale ci liggéeyam ci li des sama dund maa ngi ñëw waaye maa ngi am nit koo xam ne maa ngi bëgg topp ci ginnaawam ndax jàpp naa ne war na maa mën a jariñ ci nàngam waaye maa ngi bàyyi teg nit fukki at jëmm joo xam ne 2013 laa ko bàyyi tàggoo ak moom ba 2023 10 ans te fu ma tëddee géntu ko fu ma wéetee xalaat ko ngir jàpp ne man na maa lor ma jege kii mu jàngal ma ne ku yàlla bind mënu laa jariñ ku yàlla bind mënu laa yor ka lay lor yàlla la ka lay jariñ yàlla la waaye mën na koo jaarale ci nit ndax luy am ci dundu doomu aadama day am sabab xam nga ni mu ko jàngalee yàlla dafa dogal ma ànd ak moom 2010 2011 bi ma dooree sama carrière ànd ak moom liggéey bi ba 2019 ma génn ci njabootam te li ma génn ci njabootam xam naa ko man dañu maa rocc 2019 dañu maa rocc ba album Seyfi ni génne ba noppi dañu maa rocc ci njabootu Wally yóbbu ma ci baada touche bi ngir defar ma raxas ma leneen bi ma raxasaat ma indiwaat ma maa sant yàlla ci sama dem gi sama dem gee ma may lii de sama jëf ji barke Serigne Saliou Mbacke bu ma demoon du ma ko jëf ndax du ma xam kii mooy kan sama dem gee war a sama jëf maa fier ci sama dem gi bu dem gi doon moom tey ma demaat maa sagu maa am ndam ci sama dem gi sama dem ñaari at yii diggante dem bi vingt ci ko biir fi deux mille vingt deux deux mille vingt jeex ma dellu siwaat maa ci sant saa borom ndax ci sama dem la ma yàlla wan ci samay gët loo xam ne bi ma dellu see xam naa ki ma bàyyi ginnaaw masagu nag ndax moom ay dem réeroo wul barki Serigne Salim Mbacke ku teg sa bambeel mi ngi di toog nit di teg ma di ko faral maa ko ne ko damaa fas yéene dugg ci nangam ak sangam nii laa ko bëgg defee ak nii ak nii mu ne ma am dëkk sama diggal defee ko ni nga ko bëggee te loo ci def ba loo ci wax ñëwal laaj ma ma jox la ma am fa weeram am diggalam mi ngi di toog ma tàmbali engagé wu ne ci liggéey ba dem ba ca biir la ma ca war a fekk ma ca yàlla wan ma la ma cay wan ma xam te la ma cay xam gindeeku ca te la ma ca war a gindeeku ba dellu siwaat fii toog waaye ma sant yàlla ndax li ma sante yàlla mooy mënoon na maa dellu siwaat vingt ans après fan laa koy waxee mënoon na maa dellu siwaat vingt cinq après fan laa koy waxee mënoon na maa dellu siwaat trente ans après fekk suñu ñaari doom yi mag ba war a maase ba war a ànd dem doxal muy Mohamed euh, Seck mu Wali ak moo euh, Mohamed Serigne Salim Mbacke mu Omaro fan laa koy ndax ko yàlla ba li war ci man def nañ ko ba mu dellu si waat ci suñu doom yi ràññee guñu alhamdulilahi rabbil waaye bi ma dellu see mbokk yi li waral ma ne leen gëm yàlla kii ko def ci man gars yi nañu maytu di nit ci métier ma ngi leen wax lu doy waar sénégalais yi maytu leen di juger doomu aadama ci li muy yëngu ak ci li muy liggéey yi boo may indilee kaamil man laaj ma ci senegal jigéen bi gën a sell bi gën a ragal yàlla sama yaay ngi fi dund de man sama yaay man mi ngi fi dund mm-hmm. ak yeneen yaay ak keneen ak keneen mais man li ma gis laa wax li ma fekk li ma sama bët may billaahi wallaahi wa man Omaro xaw ma jigéen bu gën a ragal yàlla Fatou Gueye Diouf man xaw ma ko man Omaro dëgg la dëgg la de dama bëgg ma bu baax dama ne man Omaro sama ndey ngi fi Zeyna mi ngi gën a dëkk man xaw ma jigéen bu gën a ragal yàlla Fatou Gueye Diouf man xaw ma ko man Omaro te moo ne ci suba ba ngoon saa bu xëyee liggéeyam mooy mbalax mu neex ñu fay ko mu ñibbi këram dundal ak njabootam waaye terewu ko doyloo yàlla gëm ko wóolu ko waxtu juróomi du ko raw moo tax ma ne leen maytu leen di juger nit ñi ci seeni métier maytu leen di juger nit ñi ca la ñuy sol ak la ñuy wax ak la ñuy fecc ak la ñuy def nit ñi ay nitu yàlla nag ñooñu leen baaj seen borom kii la yàlla am lu mu def ci moom te wan na ma ko man mii di wax ak yéen bi yàlla ma dem ñu ma lavage yóbbu ma waaw waaw dañ ma defal laa lavage dañ ma yóbbu woon ngir raxas ma ah, Faaba Gaye ndap hmm. boo ko bëggee dëgg togg sa ceeb yàpp ba mu neex hmm. say naw la ñëw toog nga ne nag ko ci yàq balaa nga ko ci yàq bi ko raxas dan maa yóbbu woon ngir raxas ma hmm? waaw ah, ma daar la dan maa yóbbu woon ngir raxas ma ban ma raxasee ba ma set delloo siwaat nañu ma waaye xam nga lu garaaw kenn comprendre li war a dem gi kenn comprendre li war a ñëw gi ku dul moom sëñ Baar ku dul jëmm jii juum nga ci sama dem juum nga ci sama ñëw kii képp moo mës ta ci sama dem kii képp moo mës ta juum ci sama ñëw te dama ko koy leeral tey bi ma demee lu ni kur wax ji bari may jën ci beres bi naan ko tas suñu suñu soirée bi yobal ci bombe pompe à gaz bu ñu indi fusil danañ koy def la jaag yow di simb waaw di simb ak di cinéma di showbiz biñ ko tegalee vidéo bi xam nga lu mu toll Ndakaaru xam nga dafa xat les murs ont des oreilles wax yi di génn te loo xam fu ñu jaar biñ ko indee vidéo bi xam lu mu da ko seetaan ree ma def la ñaari tax ne kii sama élément la kii ci sama njaboot la bokk mu yéex ak mu gaaw dina ma wuy si yaa ko wala waxu ko nga ne la waaye yéen est-ce que yéen a ngi may dégg dama ne ba ma génnee ne moo yebal suñu soirée ay fusil ak ay bombe ay lacrymogène biñ ko tegalee vidéo bi dama ngeen déglu ma baax biñ ko tegalee vidéo bi daa ree ba sonn teg la ay tànkam ne leen kii mu yéex ak mu gaaw day dellu ci sama loxo yi ndax sama njaboot la waa léegi nag fi nga xam ne fa la bettee nit ñi ba bettaale ma fa man ndax man ba ma bettee laa ko yoo ko xamaa juróom-ñeenti at yemaan rek moom diggante 2011 ba 2019 xaw ma ko de bi ma demee xaw ma ko bi ma dellu see xaw ma ko bi ma bettee laa ko xam xam lan la ma bettee nit ñi dañu maa gis ma ñëw benn ñëw ci conférence de presse bi fii lañ toogoon moo tax lu waay dox na am seere wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa lu waay wax ci boo dund boo dee di ko waxaat fii lañu toog sama premier jàkkaarloo ak moom wax jëme ci liggéeyam jël engagement fii la woon conférence de presse bi keroog bi ñu génnee album état d'esprit coow li na kuur vidéo yi tas internet bi commentaire yi ku ne jël TikTok sama vidéo tax di wax di commentaire may bàyyi xel kàddu yi ku ne ci dëkk nit ñuy wax foog nga leen déglu doo muus doo xar doo mbaam doo béy nit nga ñuy wax ay nit lañu seen wax jariñ na baa mu lor la am solo li am solo mooy xoolal li tax ñuy wax ak fa ñuy waxee dama ko ne bis ni wéy waaye dama ne à partir de déwén ba keroog may sàngoo suuf at bu jot laa koy defal bil ko compte bi ko dajale à partir de déwén at bu jot Wally Seck may na presse sénégalais cinquante xar jox na digal ambassadeur am Omaro mu Cheikh Béthio porte parole am ngir mu jox leen ko te dara leen ko jox te bu ma leen jox ñii ngeen ñëwee taal seen i caméra ngeen ñëwaatee taal ko ma jëbbal leen xarit asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu